من البرايا الصمد ومنهم نزعني محمد نزعني من الورى الباقي القديم علمهم بأنني العبد الخديم أكرمني بالصلوات الخمس ورمضان حاميا عن رمسي أكرمني بسره المخفي من قاد خطي إلى الكرسي قصائد من معجزات الملتقى صلى عليه من هداه وانتقى قصائدي فاقت شيوخ التنبيه وكل خير وسلوك التغطيه اذا كتبت اهتز عرش الله جل وغاب كل جاد الله asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi fi teew ñu ngi leen di nuyu bu baax. sëriñ bi Cheikh Sidi Muxtaar jiite jiite jiital sëriñ Moustapha Cheikh Mahamadou xam ne ñi ñu gannaaw nuyoo bi nga jotul kàddu moom ci baat boo ci wax rek baatu cant la ndax li ci gën a am solo mi ki waral bés bi Cheikh Mouhamadou Bachir moom Cheikh Abdou Khadir wàllu lépp moo ci dellu leer na nañ kon di sant rek mooy baat yi ma war a wax gannaaw ñi nga xam ne ñoom la Cheikh Sidi Moxtaar yebal gis nañ mbokk yi fi teew yépp ñu xam itam seen yéene borom bis bi xam ne seen cër la xamal nañ ko seen bopp ñoo ngi ci gën a sant suñu borom ñu wale sëriñ bi di gën a sant sëriñ bi itam moom ñu nu fàggul lépp jiitu jotaay bu rafet bii nga xam ne lépp sëriñ bi la kon ñoo ngi sant bu baax baax baax baax baax bokk yi fi teew bokk yi bokk yi bokk su su bokk ñi nga xam ne ñooy njabootu maam jaara ñoo ci jiitu ñu njabootu sëriñ bi ñi nga xam ne ñi teew nañ fi xam na itam seen bopp lañ fi teewal xam ne itam na bokk yéene ji noo noo bokk pëstee bi dañ fee dañ dañ nekkal rek ñëwal seen bopp ñëwit di ñu soññ ci liggéey bi ngir ñu gën koo mën a sàmm gën ko mën a rafetal te lan ciy wut ñu jiital leen ca nu bokk lépp loolu noonu koy ñaan bu baax Ablaye nag nga wax ay kàddu yoo xam ne kàddu yu rëy la ci man Cheikh Sidi bu fekkoonte dañ ma woo laaj ma atte loola atte loolu kon damay atte naa jiitu yi Cheikh Sidi bàyyi ko fi lu yàgg mu nekk ci liggéeyam bii loolu rek mooy sama yéene ci moom laa koy seereel li ko ci sant moom ko def ci man di sant Serigne Touba moo mi tax mu euh, kon Aliou donc leen di jot loo ab nuyoo ci président li mu ñu dolleeti rek mooy yi yéene ju mu am positif bu am ci sëriñ bi am ko ci maam jaara am ko ci barab bi ak nag yéene ji mu am ci noonu ak taxawaay bu rëy bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy def ci noonu xam naa loolu dafa bëgg lu ma gën a neex ba tax mu yebal la waaye keneen ku mu yebaloon itam bu ñëwee dana sëkk ak mbégte ak dolli li nga xam ne moo ko nekkal si noonu ñu ñaanal ko mu sàmm ko sàmmal ko moo ko ñu mbokk liggéey bi bàyyi leen fi wéral leen kattan na leen agal leen seen yéene ci réew mi yéene yi ci am sémb sémb bi ñu sémb muy yéene ju rëy ñoo ngi ñaan suñu borom leen bàyyi leen fi bi yéene jooju ak réew mépp jëriñoo kon Ali nag mu jottalil kàddu yooyu li ma wax ne bëgg gën a feeñal sama mbégte moo tax mu yebal la ndax aali sama doom la sama soppe la sama wëllëre la sama mbokku daal bi la loolu président xam na ko kon bu amee yitte juy ji mu am ci barab bi war fee yebal ay ndaw te bari ay ndaw lool jël aay boole ko ay natt moom yu baax ñu ñëw ci bis bi loolu xam naa lu mu tekkee maa ngi sant cant yi di ko bàyyi la xel di ko gërëm bu baax a baax kon aari mu jotti lu kàddu yooyu président dina sant na bu baax di la gërëm yëg naa taxawaay bu yàgg bu agsee bu fii sant ñi nga xam ne ñoom la président booyal ñu ñëw fii dama xam ne seen yéene ju rafet rek la seen nit ju wéy la ci barab bi kon ñoom ñi tam ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm nga xamal ne xam nañ seen yéene xam nañ seen yitte eh, ci taxawaay bi la ca dolli ko rek moo di ñoo ko waxee woon Cheikh Omar Bachir li ma ta wax lépp ci borom bis bi wax na ko duma ci dellu kon kàddu yi cant rek moom moom laa amoon yu mu war a jottali di sant mboolem bokki jullit yi sant bokki taalibe yi rawatina ñi nga xam ne war nañ gannaaw lépp jëm si ci barab bi ndax ku tedd ki ci barab bi ñu ngi sant bokk jullit yépp sant bokk bi yépp rawatina ñi nga xam ne ñoom ñu ngi fi bokk te teewandoo noonu ci jotaay bi ñu leen sant leen gërëm kilifa diine yi bokk yi bokki taalibe yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm yëg nañ li def bu baax am nañ ne Serigne Touba rek leen tax a jóg te koo xam ne Serigne Touba tax a jóg nag xam nañ ne yàlla rek la tax a jóg kon jërë ngeen jëf li ca dolli fa rek moo di bokki taalibe yi su demee nii mm. jotaay bu demee nii nga xam ne xol yépp delloo nañ seen bopp ci ci yàlla gën a jublu Sëriñ Tuubaa bu ñu ko tëlee tëlee am na lu ci war wàtte fi du dara waxtaan rek la waxtaan la biiree ndax du lu ñuy waareeti du lu ñuy xamleeti téere yaa ngi fi ci moom Adama ba léegi ba ci alxuraan téere yaa ngi fi dara taxul borom wàcc ko ñun ñu tegu ñun ñëpp ci yoon yi ndax njub mu jiitu lépp moo xam suñu digganteeg suñu bopp waaye jub suñu digganteeg suñu borom loolu kenn ku ne xam nga sa bopp mën nga caa waar sa bopp euh, lu doy waar la dëgg dëgg naka jekk sax néew ko taxawaay ndax kuy wax danga bëgg wax ji am njëriñ te jaam ñi ñun jaam ñi suñu borom moom binde ni mu bindee li yi bari bari li ci nekk lépp moom jëmee ko ci noonu ngir mu bëgg rekk ñu jublu ko tegu ci yoonu jub def li gën suñu képp kàttan di bàyyi tere suñu képp kàttan di jéem a xam ne yàlla bëgg nu ji nu ca jéem suñu képp kàttan di jéem a xam ne yàlla bañ ñu du ko bàyyi suñu képp kàttan loolu nag na ci téere yi doy na loolu nag ba mel ne nattu bi nu suñu borom nattu def bakkan ci nun dafa mel ne bakkan bi benn mu tuumaal nu ci suñu doyadi wala nu tuumaal ko ci njubadeem bakkan ginnaaw moom danoo taqalikoo danoo danoo taq taqoo moom te duñ taqalikoo te mu taxawee boobu taxawee ci ci noonu gis noonu noonu mooy jëkk taxaw bëgg noo gàllankoor suñu diggante suñu borom ci li mu bëgg ci ñun ñu jublu ko te tegu ci yoonu jublu mooy tax ñu mën a xam dégg ndigal mën koo def mooy tax ñu dégg xam tene ba mën koo bàyyi mooy tax ñu xam li yàlla bëgg ci ñun ba mën ko jéem a def mooy tax nu xam li yàlla li nu leer fi nu fi nu fi nu leer xam ko kàttan di ko wattandiku njub loolu la jëriñ bala nga am diine dangaa jub bala ngaa doon taalibe dangaa jub bala ngaa mën a jëfandikoo jikko yu baax yi dangaa jub bala ma bala ngaa mën a xeex jikko yu ñaaw yi dangaa jub jub ihdina siraatal mustaqiim alfaatiha mooy alquran iyaaka naabudu wa iyaaka nastain yow rekk la ñu war a jaamu yow rekk la ñu war a dimbandikoo teg ci nag ihdina siraatal mustaqiim mooy njub googu xam bu suñu borom xam moom lu ko sàkk xam gi mu mu xam xaymaam xam gi mu xam suñu néew doole moo tax julli juróom-ñaar rakk la def naa ko juróom-ñaar rakk bu ne ca ñaar suñu borom teg la ci saa ci bis bi yépp loolu moom ci la ñuy mën a gën a xame xaymay njub ndax xam gum xam suñu doy ak xam gum xam ni ko njub yore ci noonu loolu boobu bu ko seetloo doy na tegtal ñu doy di lool suñu noonu boobu di suñu bakkan amul jiw rëy bu ko ëpp pexe muy àdduna ñu séqlu dinu xëccoo bokk ñu bokk fu ñu jëmee lépp bëgg mën a dox suñu diggante suñu borom rek dëgg la lool te it suñu borom màgg na màggaay goo xam ne du kuñ mën a jaamu ba jox ko ak xam ci màggaayam loolu ay tegtal loolu moo tax màggaay suñu borom ñàkk gi ñu ko ñàkk xam ne kenn mënu ko jaamu loolu moo tax yonent bi wax ne amul kenn koo xam ne sa jëf mën nga la ñu ñu ne ko yaa Rasulullah ba ci yow mu ne ba ci man hmm, hmm. ndax ma ci mbar mi yërma leen yéen du ma wax loolu ah sëriñ bi ñëw moom waxul da koo jëf da koo jëf digg ma boromam bi ñu gisee ba ñu ci noppee te lu dara lu borom jëmul ci lenn dul jëm ci borom nekkul ci lenn dul nekk ci borom bëggul dara dara dara lul borom dara yitteelu ko lul borom moom da koo jëm si wu rekk wuti borom mënetu ko xiyaas ndax léegi ku ne xam na ni jamono fi jamono toll foofu fi mu ne fi mu toll mel na ne adduna benn dëkk la léegi waaye sëñ bi ba mu jógee rek dana siw wuti borom ba am ndigal borom joxal ko yonent bi ndax def na li mu def xas jekk waaye nag tële te téyewu ko ci coobareem ci lay doxe lu ci lay defe lu ko soob te dara du ko ci fekk te amul yemaay coobareem amul yem amul fenn fu mu yem loolu sëñ bi xam moom bu fekkonte ne dañu dillu si mbir yi di seet gaa yàlla yi seet jàmm ko si yàlla yi tàmbali ko ci malaayka yi ba ci yonante yi du neex a gis koo xam ne li ko boromam jaral du neex a gis ku ko weesu de du neex a gis ku ko weesu bu kooku mooy sëriñ bi kon lu xam ne nag yàlla ci ndigalam ci sañ ci jëfam ci tànnam la nu ba mu bindee maam Adama bindaa ñu ñu doomi Adama doy lool ñun gën a xam suñu bopp ndax maam Adama xam ne loolu rek ko gaar kon du ñu fii kon aj noo ko ca àjjana doy di googu nag nan ko xam ñun ñëpp waaye nag lu doy di doy di lu ñàkk ñàkk solo dañu yëg màggaay sama borom bi li nga xam ne dañoo digal tere nu ko am lu ko lu ne moo moo gënal ci noonu am lu mu ne gënalu ko ci noonu waaye nañu jéem a xam loolu suñu kem kàttan rek yàlla moom mu mën a jaamu waaye nag teraanga jur yi ji nga xam ne teraanga jur yi ji nga xam ne suñu borom teral na ko doomu aadama ba gis ngeen fi doomu aadama te ak si tey ci wàllu xam-xam gis ngeen fi doomu aadama ak si tey waaye lépp nag yàlla ko def yàlla képp ngi juree jooju waaye lu mu rëy rëy bu mu tax fàtte nañu tax a fàtte ki nu ko may ay lu ñàkk ñàkk solo lu doye di doye doye nañu xam ne suñu borom moo nu teral teraangi ji nag dañ ko war a téye ak suñu téeméeri loxo bu ko amoon sàmm ko ci suñu lépp bu ko deful ngir jëriñoo ko sax war koo def ngir sante ko suñu borom mu xam ne suñu borom teral na lu ba noppi loo gën a loo gën a yëg teraanga ji gën a xam ne ci suñu borom la bàyyi ko gën a wëlbati ko sa kem kàttan jëm ci sa borom di gën a tedd ba àjjana te am na gaa yàlla yoo xam ne moom àjjana dox leen jóg ñoom ngërëmal yàlla rek leen tax a xam ngeen ko teraanga joo mën a am wërsëg boo mën a am ak boo mën a am tey ci dool ci ci xelum doomu aadama rek bokk ci gouvernement bi nekk ci wetu mag yi boo dee wut àdduna rek ci ci ci doomi jamono yi ci Sénégal moo lay gënal nag nga am sa xaalis loolu neex def fu la ndax loolu sag la doomu adama sag la bëgg mu gënal boppam mu gënal lépp loolu misaal rek la suñu diggante ak suñu borom te kenn ku ne am nga cër bu rëy bo ci teraanga ji boo xam ne moom rek nga ko seqal kon nanu góorgóorlu lu doy doy doy nanu góorgóorlu bàyyi su yàlla bàyyi ko suñu xel buñ ko mënut a ji buñ ko mënut a jiital suñu yitte itam waaye lu nu yittewu yittewoo suñu bopp lu nu yittewu yittewoo adduna nañ ko bàyyi xel suñu kem kàttan moom ko def ci noonu waaye nag yi ñu war a yi mandarga yi ñu war a ci suñu borom nu a nu mën koo mën mën nu war koo jaamu dafa bari lool waxuma sax nu jaamu ko waaye nu man koo sant ndax tawee ni jooy ji ñu defal kon lu nu doye di doye doye di kenn ku ne sa diggante ak sa borom yoon kenn ko ci ñun nag ndimbal lu ndimbal sa borom loo xam ne da ko soob mu sa diggante ak moom wala mu jaarale ko foo soob waaye kenn ku ne sa diggante ak sa borom yàlla wax dëgg yàlla dafa moom lépp dafa jeexal dara waaye li mu teg ah gàllankoor yi rek la waaye yomb na lool gëm yàlla waaw loolu moom moom yàlla koy defal moo ko jàpp ma jàpp ko mm-hmm. waaye bu gëm amee nag gëm li nga xam ne moon yi téere yi gëm li nga war a gëm yi la yàlla gëmloo boo ko gëmee ba noppi ah waaye sëriñ bi nga góorgóorlu di si jëm sa kem kàttan def ci sa xel def ci sa xol def ci sa yitte sa kem kàttan du tee nga desee lu la doy sa bopp ndax fi mu yemal la rek doy na xéewal sëkk te yomb te tey ko boole ko nag jaamu ko jëfewul gàllankoor yi bari rek ak noon yi muy sunu muy muy muy ku ci jiitu muy nag bakkan adduna xam ngeen ko te war ngeen xam ne yëf noonu rek la noonu noonu ko teg waaye mën naa ñàkk gannaaw gëm yàlla gëm ñu digal loo ci mën nga di ko def lu ñu digal loo ci mën nga di ko def mais tey ci mën bu dëggoo ci yow da nga tëjee jéem di ko jéem a xam di ca dee jéem a def sa kem kàttan waxtu juróom a ngi nii yomb lool yomb lool waaye noonu tax mu jafe lool te waxtu juróom moom mi nga xam ne moom la moom la yebal ci jaam ñi da xam fi waxtu juróom toll ni mu ko waxee kuy julli waxtu juróom mi ngi mel ne ak dex bu nekk ci sa buntu kër bis bu yàlla sàkk nga sangu ci juróomi yoon ndax da nga amati tér ndax da nga amati tér mooy duutu am bàkkaar waxtu juróom mooy tàmbali bi ak njëriñ ci topp yépp nag ñu jël sa kàttan yombul nag dañ ko gàllankoor yi la waaye ñun yàqal nu li nu yàlla may noo ngi lekk noo ngi naan noo ngi sulb noo ngi kër noo denc nit ñu baax waaye bi loolu ci biir nag teraanga juri yi nga xam ne yàlla dafa doomu aadama jëmmi doomu aadama la calme xol la la ci ne lépp ci matériel xam ne lépp njëriñam njëriñ la men ko am defal ko ci biir loo xam ne doomu aadama rek ko am waaye ni mu mu war a dundee rek doy laa nag dinaa jëri ci kon nan góorgóorlu nan góorgóorlu bu baax ci suñu diine ci suñu diine diine weesu gën naa gëm yàlla di def li yàlla digal sa kem kàttan di def bàyyi la yàlla tere sa kem kàttan di bëgg li yàlla bëgg sa kem kàttan di bañ li yàlla bañ sa kem kàttan loo ci mën nga di ko tàmbalee te mu dëggu da ciy gën a jëm kanam gën a na di ko gën a tële di gën a suufee sa bopp nag parce que daa nga jooy jooju kat li muy rëy rëy rëy mën naa dem ba gën a yées bàyyi ma yàlla na ci yàlla bu nan xam li ñu am nan xam li ñu am te góorgóorlu sant yàlla te ko jaamu ko kenn xaaral li ci jaamu bi te ci coobareem rek ay jaam na ñu war a jaamu rek nu ko soob mu def na waaye lim ñu ci dig ci xéewal ci xeeti tànga kenn mënu ko lim tey ak ëllëg tey ak ëllëg maa ngi jégalu maa ngi jégalu bay nañu ne ñaari Cheikh Mamadou Bassiram yii mu Cheikh Mamadou Bassir mu Cheikh Abdoul Khadir ne ñu ngi leen di sant yàlla bu baax a baax ne Cheikh Mamadou Bassir ne sa taxawaay bii ñu la dégg. ne doy na doy na ne ñun ne doy nga leen ci taxawaay ne yàlla daal mooy def ne yàllaa la ko defal waaye ne alhamdulilahi rabbil alamin ne am nañu tawféex te ànd ak ki la ko liggéeyloo ne ñoo ci bokk bi noo ndax lépp sax noo ko ànd. ndax lépp sax moom noo ko ànd. waaye lii dañ cee dolli ko. waaye lii nag dañ cee dolli ko mbégte dolli ci xel mu dal. ñoo koy nee ñu koy sante sëriñ bi. ndax pàgguteefu sëriñ bi. nee loolu kat pàgguteefu sëriñ Tuubaa nee yombul de. waaye yàlla lu mu yombal mu yomb. ne Cheikh Mamadou Bachir doomam ji mu sëriñ Moustapha ne Cheikh Mamadou Bachir sa moo la tànnaloon barab bii ne indi ko fi waajur mi ngi def kem kattanam ne Cheikh Mamadou Bachir yaa ngi def kem sa kattan taxawaay yombul ne taxawaay day yombul damay wax ne taxawaay mooy li mënta ñàkk ne dafa wax ne taxawaay mooy li mënta ñàkk waaye mooy li jafe nee waaye loolu yow ñu koy sant sunu boroom ci yow di ko fa sant pàgguteefu sëñ Moussa Bachir ne sëñ a ni alhamdulilah moom de sant na bu baax de. man ma ne man lu ma fekk sama kilifa di ko def. damay xeeb ne damay xeeb dolli. ne loolu nag sant na ko yàlla. ne jukkoo ma nekkoon nag yéen ñaar ñi mel na ni yéen a yor liggéey bi nañ leen bokk ñaanal yéen ñaar ñaar sunu borom sàmm leen te aar leen bàyyi leen fi lu yàgg nag ci liggéey bi kattanal leen tëbb leen ndimbal tëbb leen ndimbal ba ñu gën mën a taxaw seen taxawaay. a mën a taxawaay seen taxawaay bu rafet. na mu rafet na mu rafet. ñu ngi leen koy ñaanal bu baax a lépp nag ne loolu lépp nag. ñëpp ñëpp. ngi ñaan noo ngi ñaan. sunu mu gàttandoonu. mu gàttandoonu. tawféexi tawféexi sëriñ Tuubaa. tawféexi sëriñ bi ne tawféexi sëriñ bi. mooy defaru biir ak bitti yombal lépp lu baax ne kon yàlla na suñu borom gàttandoo tawféexi sëriñ bi gàttandoo nu ko tëbb nu kattan ci lim namm ci noonu ban gën koo mën ban gën koo mën ne sëriñ bi nga xam ne. soxlawuloo am dara tey lu tey ak ëllëg lu moom. soxlawuloo am dara tey ak ëllëg lu muy sëriñ bi. nanu sëriñ bi gàttanul boppam. nanu sëriñ bi gàttanul boppam. ak ngërëmam. ak ngërëmam. yéene naa ko jullit yëpp ne yéene naa dama am yaqin ci lu baax rek. ne dama am yaqin ci lu baax rek la. waaw ko ci njabootam. moo tax yemewoo ko ci njabootu sëriñ bi. yemewoo ko ci yemewoo ko ci bokki taalibe bi. yemewoo ko ci bokki taalibe bi. yëpp laa ko jullit yëpp laa ko yéene. ndax njariñal ñëpp la. jërëjëf amiin amiin Mbacke nga yàgg fit lool Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla amiin amiin amiin amiin Mbacke baax na ma lool alaaj mu sell mu juddoo ko bëgg lool di ko teel Mbacke yàlla nga fi yàgg amiin yàlla nga fi yàgg Mbacke yàlla nga fi yàgg Mbacke amiin amiin amiin Mbacke amiin Mbacke amiin amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke ñu may yoon wi kilifa yi